sa doom ji def soo bët dafa nga ne lii jaat na xool ni mu yàq soo bët gis xool ni mu def soo bët bi seen ji yoroo leen ko dafa ba kenn xamul lu muy ndur waaye man soo leen ko nga ni mu yàq soo bët bi beneen ngaayam lii lan la dama doon fit picc dal dal ne la mu daal la baal waaye dama andru picc ba may picc xool ni mu yàqee soo bët bi nga naan neen da doon laspee picc mu dal ko neen da doon fit picc noonu mu daal la xool ni mu def soo bët bi nga naan man neen da doon laspee picc mu dal ko eh ana da yaa na ma ah loolu moom sax naa ko ba bu ñëwee dana ko waxam déet na xam ba xam picc laa wala doon picc. déedéet déet déedéet suñu góor doo picc de doo picc kii da xamul léegi moo tax mu naan la picc waaye man mii di bàyyi xam ne du ma la jaawalee picc kii nii di yaayam du lay tontu man mii di bàyyam du la ko. tey na de. man dem man dem de. man dem a mën a ànd naan. lan ma añ pare nijaay nijaay kaale añ njaga njaga xaamu tubal tubal fan fii ku fi waxtu añ fekk boo ñëwee doo añ ah nijaay doo bàyyi mu tubal ko sànq mi déet déggoo li ma bul ko tibbal fii ku fi waxtu añ fekkat muy kii muy kaa ñëpp place yamal ku fi waxtu añ fekkat boo ñëwee doo añ. waaw doo bàyyi mu tubal ko sànq fi woon di ma ma yàq mi fi woon doo bàyyi rek mu tubal moom ma sama jël bul ko tibbal ku fi waxtu añ fekkat boo ñëwee doo añ muy kii muy kaa ma fekk ko ma ñàkk kaa fekk ñëpp place yamal ku fi waxtu añ fekkat boo ñëwee doo añ. kon nag kaa añ. dem naam sa tànk ba ñëw naa. añ ak léegi laa lii ko fekk boo ñëwee doo añ de dem fay aw ci mbedd yi taxawaal ba añ naan léegi laa dama defoon dama añ fekk boo ñëwee doo añ benn ndeyam réew nga de mos naa gis gën goo xam ne ni ab bindab la léegi loo xam ne te la yow war yar sa doom sa doom ji dafa réew ba ken xamul lu muy nuru te ko tudd nga wax a wax ba wër ko barki dem ma njaay la fi la seen bëtab jàmbur ñu ñëw fi naan ma léegi laa te ku nekk sa bët du suufal si nga bëgg a rey sa bopp dinaa nanguwoo ko ko yar yàlla ko eh, dimbale de benn ndey bu lekk ngeen koy ba waaw wax ji koo si yéene waale. nga si yéene waale kay xam na boppam. ki nga si yéene waale ndax xam na boppam waaye loo baax na loo def baax na waaye doo la tontu. Njoon Diop danga maa ñeme tontu tontu ma sa njoolaay boobu ak sa doyaay boobu danga maa ñeme tontu tontu ma seen Ngoon Diop. Eh, eh, tontu ma wax dëgg sa da ngay fóot. damay fóot di. sa maam day julli. maam julli. baa fóon dana set. ah man damay fóot ba mu set waaye sa te yaa fexe toggal. may taal añ. yaa bëgg fóot taal añ. waaw moo tax may gàncax bëgg fa séenee ba pare taal añ. kon da yow jàmbaar nga. am naa gani ñàkk solo nag maa du ngeen fi yendu. dañuy yendu magam dëkk sax. Ah, fii moom xajoo leen. lenn la nuyu sama ana njaag njaag nga fa maa ngi fay naqari deret rek maa ngi fay naqari deret rek kay ana ngooñ jóob ngooñ a nga fa waaw kay man sax loolu doon ndax maa ngooñ juñ tuddante lu tax xanaa benn nday mi moo ko beneen beneen ba du set mu ne ngooñ def na ma lii ngooñ def na ma laa ngooñ def na maa xuloo xuloo ba mënatu nga ko léegi sa penc ma lay dem di di xaañ paa yaa ko def na moo tax nga bëgg nga yóbbu ma ko sax mu jàng dañ naan yarum maam de tuxta yaru da kay taxaree wante dinaa wuuteeg maam yi bari de kii su ma ko yoree dina yaru li na sa xol sa su ma jugee li nga si bëgg dinaa la ko sa daara ji man mii de loolu laa bëgg su ma jugee dinaa la sa daara maa ngi jig dem. doo yéen maa ngi dem. toogal baay. maa ngi dama toogal maa ngi dégg. tàng na te dama xiif kon dem añ ba pare tëdd fa di nelaw yaakaaruñ ma sax <sighs> tey tàng na de <sighs> ngoon ngoon Jóob naan jaay kaay na naa jëngal waa indi ma sama añ ban indil ma sama añ nga naan ma añ benn indil ma sama añ nga naan yaakaar naa laa na ko fi añ fekk bi lay tubal moo tax tey tubal la ma ne yaa faax ku fi añ fekk buñ la tubal moo tax tey tubal la maa ni lii laa la dama xala dem sama maam may jooy ah yow yeex ngaa jooy fanweer at ak ñaar ba léegi nga dëgg ko jooy ini ma sutara ko ma jàpp <laughs> 这咋了？ yaay lii lan la muus la dafa lakkale lool saa na ne mu ñëw ci waañ wi cëpp cëpp di lekk jën jàmbur yi kunti ba dara mu ñëw lekk ko moo tax ma fekk ko fii xaw koo rey te ko fekkaatee. yéen waxoon la say togg bul ubbeeku ubbiwaat na xamoo luy jige ci kaw daanu sa biir kin lii su boobaa dina la jural lu ne te li gën a yées taal ba noppi teg sa cin wàcc ko fa di dox waa maam taal ba pare wàcc fa sa cin lu si nekk laaj nga lu am solo nag taal ba noppi wàcc fa sa cin baaxul ndax soo génnee xamoo kuy jige si ëtt bee xoromal la ko maam posinal la ko te su boobaa koo ko yekkal yekkal ko musiba yow mi di gone nag sooy togg na toog xam toog li ngay togg ba mu ñor nga doog di génn sa waañ yi waaw kumba xambal gaaw naaj na de maa matt maa ngi bëgg a jeex de matt maa ngi bëgg jeex xaar ma ñëw dem sa lobb ba wutal la fa matt asalaamaaleykum ah kër gi moom kenn na ko fi xanaa kër gu toll nii kii moom ku fi yendu baa di añ ah fi kër kenn na moom ah ma ba ah kër gu doy ne ku yendu kenn fi nekk ah ah ma xool ba am daa mel ne kenn salaamaaleykum ah daa mel ni dañuy taal añ dañuy kay ah waa ñeeg seen ñu la bu tuuti bii ñaari nit wala ñett dañ see mën a añ xaar ma dolli ko xaar ma dolli ko laay waaye ngooñ yow xam nga ne sama sànqalus maam toll ba ngay dolli am ñu lu gëm wax nga dëgg de xaar ma nangu ko kon nag mu tuut ah ñeme nga kaa tuut di dara bi ah wax nga dëgg de ma sotti ko si kon déedéet bu ko day soppal ñu lug bi ah kon nag nu ma def bul ko tuur di ray rabi bul fi sotti di sofa cindi kon nag nu ma koy def sët maa taali fayit déedéet Ngooñ. waaw na kañ la fi ñëw. ana waa kër ga. jàll si bés a ngi toog. alhamdulilah. namu naa leen gën na gisama maa yàggoo fi yàgguma fi daal ana waa kër gi nag ko ana waa kër gi ña ko ana njaag njaag nga fa ma nga fay naqari deret léegi ana fan na fan maa nga fa namu naa di man yéen xanaa tamit tàngoor bi la sonal de. ah tey maa ragal tàngoor de. ah dara métti ma daal. naqari deret suñu naqari deret bëccëg. war naa wàññi de moom. waaw man cin li baax na te ñeme ma koo laax te sama wax ma laax ko te ñëwuma dem ca garab ga naan ko maam ndax ma laax cin li te gën gane fa boo ma nu may def ah naa xam ba ba ci kanam rek. Hmm, yéen moom dama leen a namm moom maa yàggoo fi bi nga yàgguma fi daal damaa demoon sa lob ba wutal sa matt bi yàgguma fi daal ana waa kër ga nag ñu fa Sëtaat kaay yow da nga mënta denc sa oto bi ban waxtaan ba noppi dañuy wax damay waxtaan demal sa néeg ba ban waxtaan ba noppi demal yéen moom namm naa daal ni may def su ma maa ngi sët su añee maa ngi sët waaw ndax maa ngi bëgg a ñeer di waaw waru may def aha xaaral ñëw pexe du jeex. xanaa daa ana waa kër. ña méttee ma. ana waa kër ga. ña nga fa. ana faat na ma. faat naa nga fa. amu naa lim de moom. dinaa yem seet sama. ah waaw ndox mi de yeex naa ñëw. xanaa da ngaa maroon. maroon naa de. baax na baax na. waaw sa noppi dafa neexut ndax lan nday baax na jóob ca suba ba léegi ma ngi lay ne nangoo koo fay fayal ma koo waawi sàmm palug jëlëg lan du ngis xorom càkkee séddee gone gone gu yaru de la ah yaru na tee na laa mën maa ngi def na waaye maa ngi def nii na nuyul ma faan ma laa wax billaay di ngeen xam li ngeen dañ suñ ko lépp maa génn nuyu ko leen ci lu dul sol seen daal yi di dugg ci kër jaam di bëgg a xam lañuy togg ak ko am tey jii lii may togg ak lii may yekk dina leen umb de sët sa taat sët sa taat naam maam kaay daa ma ande kaay nga naan daa daa ma añ kaay nga naan damay añ man de xuma kañ ngay mën a wax man soo xamee li ma dama lay neexal xam nga mbuqus déedéet lu neex a neex la moom laa lay neexal gan gi fi ñëwoon gis nga lu mu sol yéer bu xonk daal di weex yéer bu xonk daal di weex yow xam nga naa la dóor lu ma la waxoon ni ma la sëb sëtaat sa néeg bi waxoon naa la gan gu fi ñëw bul xam ba xam góor la am jigéen day xam la muy summeeg la mi dut summi yàkkamtoo lu gan ñëw fii ba nga ni yéer bu xonk daal di weex nekk ci ëtt bi dawali ay oto ak serkale ki lu ne waan bis ma la jàppee ba bàyyi la naanu duuru duur ba nga bëgg laggal woowul ma sët sët sëtal yàkkamti lu dul gan ñëw fi ba mu njëkkante ji ëtt ba naan yére bu xonq ak daal di weex di dawali pneu ak serkale ki lu ne want bis moo ko jàppee ba bàyyi ko dootu su fi gan ñëwati dootu ko xoolaat sax bay xam góor laab jigéen la. maam yaa waaw lu ma la waxoon. dama waxoon dama laa def xam naa ne moom nga def noo ko defee da ma sanga saan pal ba sa jëlagu lal ba naa laa dab ma fàtte xorom te su ma kii sédd la waaw kumba gone de nii lay def day amum xel amuk dégle ba luñ ko wax mu jàpp ko su ëllëgee suñ ko ko laajaatee mu mën kaa ñëw waxaat ko waaw kumba laggal indil ma sama maalekum maaleykum salaam. bisimilah. naam Serigne. ah yow moom gañe nga ma di. soxna si soxna Tabara. soxna Tabara Tabara. jaam rek Tabara. yow ko gis naa dañoo gëj a gis. ana waa kër ga nag. ña nga fa. Ah, moom dox nga naa di ba jaamu ngay dox. jaamu la kay. gone gi de yaayam sama sët la mu jox ma ko fan yee jàll nee na daa mu dugg daara ndax dafa léegi léegi loo ma xool la xam ne seen jàng doy na ma indi ko si yow bëgg nga jàngal ko. jërëjëf. ndax dañ naan gone kat soo ko yorut jàngaloo ko nu mu mel yaa ko yóbbi. jërëjëf jërëjëf yow de maam ju baax nga te maam ju jafe ci maam yi nga waaw ndax dañ ne yarum maam kat am na ñoo xam ne taamu wuñ ko waaye yow de maam ju baax nga waaye nag sa tànk yi nga dox indi xale bii ba ba ngay dellu. yàlla dina la ci bindal aw yiw xale bi nag li nga bëgg ci moom dinaa ko ci def ndax nee xale kat soo ko yoree jàngaloo ko yoroo ko lu ko def ëllëg yaa ko ko yóbbee léegi nag xale bii doo dinaa ko def ci moom ab yar ak i teggin ba soo gisee li ma ko doon jafe doo ko ci mukk waaw moom nu mu tudd sax. moom de yaan benn ndeyam la koy wax. benn ndeyam xanaa loolu moom gone yee ko tuddee rek turu xale la. déedéet yaayam da kaa am moom dong loo tax mu naan ko benn ndeyam. Ah, waaw kon mën nañu ci bàyyi benn ndeyam bi ndax turu yaay moom am na solo lool ci doom nañ ci bàyyi benn ndeyam bi. loolu dong laa bëgg nga jàngal ko defal ma ñaan. jërëjëf ndax xale moom ku ko jàngalut yaroo ko lu ko dal yaa ko ko yóbbee taalalal bisimilah. ngi yëg jërëjëf jërëjëf na la yàlla fay jërëjëf. jërëjëf. benn bi lay xaar ma ngi ñëw. jërëjëf soxna Tabara yal na la yàlla fay. Matar. naam sëriñ. waay. jëlee kii yóbbu ma ko ci xale yi.